sensibilisation ci kaw euh, projet bi tudd Protégem Protégem nak day euh, dimbali di encadrer di accompagner xalé yi ak ba ans euh, et et financement bi ñu fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne donc l'Union européenne a financé projet et Union européenne mo financé projet bi et donc projet bi dafa ñëw pour accompagner comme nous avons ko waxee yi ak ans xale yi nga xamante ne ak ndaw yi dañoo bëgg tukki jóge dëkk ba dëkk mu mën na nekk benn pays ba beneen pays mën na jóge Guinée ñëw Sénégal wala traversé Sénégal pour dem beneen dëkk léegi ñun dañ leen di dimbali aar leen ndax ci yoon boobu noonu ñuy jël ba egg fi ñu bëgg egg ñu bañ ci am ay gàllankoor ñu bañ ci am ay problème de protection ñu bañ ci gis lu leen metti ñaata xale ngeen ciblé léegi euh, projet bi ci ñenti pays yi ñu nekk di ko mettre en œuvre ñu ngi ciblé vingt neuf mille ak ndaw ma ngi koy fàttali ba 25 ans góor ak jigéen. d'accord yan service après la ñu mën a bénéficier auprès de vous. d'accord léegi euh, ñun dañoo mettre en place benn cadre euh, cadre boobu noonu mi ngi tourner autour des comités départementaux de protection ci ñeenti bërëb yi ñu nekk légui comité départementaux yoyu noonu dañu am ay mission yu jëm ci protection de l'enfant projet bi dafa ñëw appuyer wu fofu noonu pour pouvoir euh, def suñu mission parce que tey jii nii boo ñëwee fenn nga fekk fa ay nit yu jité da ngay ñëw so bu leen bëggé accompagner nga top seen ginnaw pour que yow sa mission bi mu gën jëm kanam donc ñun ci comité yoyu lañu appuyer wu légui amna ay différents services

waxtaan ak ñoom pour xool lan moo leen gën a arrangé ban solution la ñu bëgg ñu accompagner leen si loolu noonu ñu mën ko am. merci beaucoup.